ngir ngeen di jot suñu vidéo nag foo leen toll ci biir réew mi wala bitim réew da ngeen di abonné fii ci Farokh TV ngir mën a jot mbooleem vidéo boo xam ne dinañu ko ngir xam mbooleem loo xam ne dina xew fii ci biir réew mi wala bitim réew. ba bakkanam ya gémmiñ gi di sotti ba bakkanam ya gémmiñ gi di sotti deret ndax dafa xaw a lompoñ ndax dafa xaw a lompoñ yonent bi ne ko lii laa la bañaloon yonent bi la bañaloon mu ne man lii laa bëggoon man lii laa bëggoon maa ko njëkk a jàng maa ko njëkk a jàng amaamahum amaamahum loolu laa bëggoon am naa ko loolu laa bëggoon am naa ko loolu topp na ko ba abu jëxli bi mu daanoo badar topp na ko ba aboo jëxli bi mu daanoo badar aboo masood ñëw ba tiim ko aboo masood ñëw tiim ko dafa rocci paakaam bi ne ko jekkalil dafa rocci paakaam bi ne ko jekkalil xam na xam na ne da koy paaka bi mu jox ko ne ko jekkali ma paaka bi mu jox ko ne ko jekkali ma ndax xam na la ko dóoroon ndax xam na lam ko dóoroon te tey mënta fay te tey mënta fayu abu masoud dafa nettali mu ne abu masoud dafa nettali mu ne dañu toog ak rasulullahi dañu toog ak moustapha sallallahu alayhi wa sallam is ataahu atin is ataahu atin am ku ko dikkal am ku ko dikkal ba mu demee boroomu mbooloo mi ba mu demee boroomu mbooloo mi mu yéesal gëlëmam mu yeesal gëlëmam wàcc dox jëm ci rasulullahi wàcc dox dem ci moustapha sallallahu alayhi wa sallam nuyu ko nuyu ko ne ko dee ne ko dee dox naa kilomètres yu bari dox naa kilomètres yu bari mar naa bëccëg mar naa bëccëg foog naa guddi foog naa guddi foog mooy ñàkk nelaw foog mooy ñàkk nelaw ngir lan ngir lan ngir ma laaj la ñaari laaj ngir ma laaj la ñaari laaj yonent bi ne ko yaay kan yonent bi ne ko yaay kan mu ne ko man maay zaydul xayli mu ne ko man maay zaydul xayli xayli xaylu mooy naaru góor xaylu mooy naaru góor waaye lu mel noonu soo ko waxee yonent waaye lu mel noonu boo ko waxee yonent bi immédiatement immédiatement daf koy sopp daf koy sopp mu ne ko saydul xayri mu ne ko saydul xayri mu ne ko saydul xayri mu ne ko saydul xayri alxayru alxayru fa hiina xalaqahu laahu fa hiina xalaqahu laahu قلق منه كل خير قلق قلق منه كل خير بمن أول أول ما آه، يا جابر نور نبيك بمن يا جابر نور نبيك لا يالا نجاك بن نور نبيك لا يالا نجاك بن نور نبيك فهينا قلقوا فهينا قلقوا قلق كل خير قلق كل خير با يالا بيني لير با يالا بيني لير leer لا تي la ci لا تي تك هيو هيو لا تي يالا تك لا تي يالا تك yonent bi ne ko yaay saydul xayri yonent bi ne ko yaay saydul xayri fa rubba mahdalatin fa rubba mahdala mah mahdala mahdala xat su ila xat su ila bari na gàllankooru laaj bari na gàllankooru laaj guñ laaj guñ laaj waaye laajal waaye laajal mu ne ko mu ne ko xalaamatullahi xalaamatullahi fii man yuridoho fii man yuridoho wa xalaamatuhu wa xalaamatuhu fii man laa yurido fii man laa yurido mandargaam ki bëgg yàlla. man mandargaam ki bëgg yàlla. ak mandargaam ki bëggul yàlla. ak mandargaam ki bëggul yàlla. laaj yi rek laa lay laaj. laaj yi rek laa lay laaj. yonent bi ne ko est-ce que. yonent bi ne ko est-ce que. waaye comme moom. waaye comme moom. li ko yàlla defal. li ko yàlla defal. Euh, ci euh, euh, ci ci philosophe. ci philosophe. kenn ku ne ni nga toll lay waxee. kenn ku nekk ni nga toll rek laay waxee ak yow. mu ne ko kayfa asbaxta yaa saydu mu ne ko kayfa asbaxta yaa saydu mu ne ko man de asbaxtu mu ne ko man de asbaxtu noo xëyee noo xëyee mu ne ko bëgg yiw ak ñoñam mu ne ko bëgg yiw ak ñoñam bëgg di ko def bëgg it di ko def ba su ma ko deful ba bu ma ko deful sama xol bi di métti suma xol bi di métti ba bu ma ko defee ba bu ko defee ay xantu ay xantu bi sawaabiha bi sawaabiha ma yëg ne danaa ci am ma yëg ne danaa ci am yool yonente bi ne ko hiya hiya yonente bi ne ko hiya hiya bi hay ni ha ne ko li ngay laaj loolu la ne li ngay laaj loolu la loolu mooy mandargaam ki bëgg yàlla loolu mooy mandargaam ki bëgg yàlla آه، والذين يؤتون ما أتوا ما وقلوبهم وجيلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها حاملون دكنا def li ngeen def def li ngeen def seen xel yi di tiit seen xel yi di tiit bu mu dal de bu mu dal de yàlla nee na ñooñu ñoo moom xéew yàlla nee na ñooñu ñoo moom xéew mu ne ko li nga laaj mu ne ko li nga laaj li nga wax la li nga wax la mu ne ko mu ne ko ni nga yëgee ne boo defee yiw ni nga yëgee ne boo defee yiw wóolu ne yàlla dana la ko fay wóolu ne yàlla dana la ko fay mooy màndargaam kuy bëgg yàlla. mooy màndargaam kiy bëgg yàlla. ma bëgg leen a wax ne. ma bëgg leen a wax ne. lii màndargaam bëgg yàlla. lii de màndargaam bëgg yàlla la. màndargaam bëgg rasulullah. màndargaam bëgg rasulullah sallallahu alayhi wa sallam la. xam nga ku mel ni Serigne Moustapha Taha mi. xam nga ku mel ni Serigne Moustapha Taha. su fekkee niveau bi mu am xam nga ko. su fekkee niveau bi mu am xam nga ko. doo ko posé question. doo ko posé question. da ngay toog déglu ko. da ngay toog déglu ko. La question bi posée. koy posé. dimension là. cette? dimension la. te ci la lay tontu. te ci dimension mu ci dimension la. première question rek question réponse bi rek doyoon na. réponse bi rek doyoon na. nee na ko kii ko wax sax bidaa la. ne ko kii ko wax sax de bidaa la. moo am na ko duñ ko laaj. moo tax am na ko duñ ko laaj. nee na ko ki ki wax ne gàmmu bidaa la moom bidaa la. moom mu ne ko. kii wax ne gàmmu bidaa la moom bidaa la. tollootuñu ci gàmmu bidaa la wala du bidaa. tollootuñ ci gàmmu bidaa la wala du bidaa. lan la gàmmu def. lan la gàmmu def. ci lañ toll ci lañ toll. Euh, waa ji ñuy wax malikul misfar waali waa ji ñuy wax malikul misfar turu kamaali turu kamaali saahibul irbal saahibul irbar moo njëkk a liggéey lu téere mawlid moo njëkk a liggéey lu téere mawlid fay ci junney dinaar fay ci junney dinaar pour ñu màggal rasulullah pour ñu màggal moustapha sallallahu alayhi wasallam lam ca rey ci junney gàtt lam ca rey ci gàtt kenn xamul nam yem loola booba ba tey loola booba ba tey ñu naan ndax bidaa ñu naan ndax bidaa la tollatuñu foofu tollatuñ foofu de. tollatuñu foofu. tollatuñ foofu de. lan la gàmmu def. lan la gàmmoo def. loolu fa lañ toll. loolu la foofu lañ toll. xalaxtahu rabbi. xalaxtahu rabbi. nafaaxan li jumlatihim nafaaxan li jumlatihim. min faydi min faydi maamam ne yàlla bind nga rasululaahi. maamam nee na yàlla bind nga rasululaahi. nafaaxan. nafaaxan. muy jëriñaakoon muy لجملتهم مولم سل من فايد جودك اللهم صل وسلم على اول شهور مستخرجات من الهما واول فيد موهد هابد مخلص للحق ومفيد من فيودي جودي رحماني نوري anbiyaay kal ahyaar wa diyaay malaayikati adhaar awliyaay kal abraar hebaadi kal mu'miniin hebaadi kal mu'miniin wa siqaar kibaarin wa siqaar loolu ñu naan gàmmu ñu naan gàmmu bidaa ndax loolu loolu nag ñu naan gàmmu bidaa la xalaxtuhu rabbi nafaahan li jumlati min faydi joodik مونه وخاتوما رسول الله دي من خليفام لا واخذني نافعا لاهل ملتي منتفعا ربي يا نافع يا الله داكوندا من مي خليفام من عمر ابن خليفه man def ma ma di jëriñe li ahli millati yi ñeel ñoñ diinaam képp kuy wax laa ilaha illallah man Omar ibn Ali ma jëriñ la ndax man xalifaab rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam la rasulullahi laqad mana allahu halal muminina isbaasa fihim rasulan minhum rasulan minhum qaaful qurani majidi bal hajibo an jaaw minhum nanguwuñu laqad jaaku rasulun min anfusikum nanguwuñu laqad jaaku min allahi noorun wa kitaabun mubinun nanguwuñu wa amano bima nusila ala muhammadin wa huwa alhaqu ndaku ndax mu ne إن الله استفى كنانة من ولد إسماعيل واستفى من كنانة بني هاشم قريش واستفى من قريش بني هاشم بني من بني هاشم أنا أنفسهم بيتا وروحا ما لقد جاءكم رسول ما لقد جاءكم رسول ما يقاف القرآن المجيد bal jaaw bal ajibu an jaaw munsirun min surun man minhu man la won nañ mi isaawe man la waddu he wale isa sake man la wal hasari innal insana man la kana aliou sant nga yàlla alhamdulilahi rabbil alamina kon nag sëriñ ba jogal ba ca kanam ngir ngeen di jot suñu vidéo nag foo leen toll ci biir réew mi wala bitim réew da di di abonné fii ci Farokh TV ngir mën a jot mbooleem vidéo boo xam ne dinañu ngir mën a xam mbooleem loo xam ne dina xew fii ci biir réew mi wala bitim réew